ba léegi foofu sa France lañu des waa Paris Saint-Germain jël nañu dogal prolongé seen contrat joueur bi di Donnarumma kon nag ki di Donnarumma diggante mag Paris saint ay waxtaan mi nga am te nag waxtaan yi commencé na sori gi nag mu yokk atu contrat yu am si club bi kii di Xavi Simons mi nga xam ne nag Paris saint ñoo ko moom ablé ko si club bi di Leipzig foofu sa championnat Allemagne moom nag dafa am clause si contrat boo xam ne nag mën naa tax mu dem ñu abale ko si club bu ko neex kon nag moom jamono toll nii FC Barcelone la tànn ngir nag ñu abale ko fa Paris ñoom nag seen côté lu ñu bëgg nag mooy delloo si waat jour lu ko may nag dinañ ko jaay carrément waaye nag bëgguñ ko abale si beneen club moo tax nag duñu yombalal Barcelone biir boobu noonu si club bi di FC Barcelone la jàll foofu na si Dani Olmo bu bu Atlético Bilbao kon daal la fu toll nii ñaari joueurs yooyu noonu Barcelone bëgg leneen recruter pour nag mercato bii di ñëw ba léegi ak Barcelone seen joueur bi ñu delloo si kii ngir nag mën seen na côté bi dem foofu la jàll sa Italie Federico Chiesa ak Juventus di Turin jamono ñu toll nii nag léegi ñu déggoo gi nag Chiesa prolongé contrat ak Juventus ba 2026 bi nga xam ne seen attaquant bi di Olivier Giroud tey dem signé ji foofu sa championnat États-Unis di MLS déwén moom nag jamono ñu toll nii Milan ñu ngi ciblé beneen attaquant bu ko mën a remplacer muy Benjamin Sesko bu Leipzig. Chelsea Manchester United Newcastle Paris Saint-Germain ak Inter kon daal la jamono ñu toll nii Jules

waa Arsenal dinañu jéem a recruter attaquant bi di Seydou Guirassy nekk si club bi di AS Stuttgart kon daal bëgg nañ ko recruter ngir nag renforcer seen attaque bi pour saison bi di lu toll ak 250 millions d'euros ngir nag mën a am bi di Lionel Messi kon club bi da ko bëgg lool ba nag pare na pour fay ko salaire bu am solo ngir nag mu ñëw jouer foofu sa championnat club bi di Feyenoord Rotterdam ñoom nag signé Sénégal ak Néerlande leen maanaam daal ñaari nationalité la bu bu Pays-Bas Sénégal fu toll nii daal tànnagul si ya ñaari yooyu fan si war a fubal waaye nag signé nañ ko contrat professionnel bu njëkk gardien de but foofu sa Feyenoord Rotterdam ñu jeexal ak final Ligue des bi nga xam ne léegi xam nañu ñaari finalistes yi moo war a dox si ya diggante Borussia Dortmund ak Real Madrid foofu la ñuy amal xibaar